allez allez allez ah. waaw mais dis donc kii du dali. waaw waaw fii leen dani mu taw wala dani mbaam la tey. léegi doomu dani mu taw naka itay. dani dama def sant bu baax la. naka jamono ji sant bu baax waaye koo yem nii daa mel ni dafa xaw a. ah ginnaaw sëñ bi damaa yaakaar. ah loolu gars yi naan ay cas social cas communautaire ak cas contact. dafa daal moom daal lay jàmbat na leen war naa am lu fii day métti. bopp bi day biti maanaam daal wopp na. de takkaatal sa masque bi ba pare yëngatiwaat ko yëngatiwaatal. waaw ah. yow dañ yow li ngay def ñu xamoo ko sax. ah ci la yow luñ leen wax ñi ngi wax ci rajo yi wax ci télé yi lu ne ñu koy wax sax. waaw man ba tey koo xam ne dafa am lu gis ci yaram bi tànk. waaw bu leen ko déplacé maître. waaw ba ci joxe nañ ay numéro vert. saa yi wala mayoo sama jàpp gis nga yéen tubaab yi.

kii wàcc na fii fii ba fii. dèjà yow moom mi ngi nii daal. mas baa ngi nii dox naa ko mu di ko buusu daa wér. nga jëlee ko fa nga moom ba fii di romb ay nit. Oh. nit ñu leen koy wàll di leen ko wàll a feroog nga fa ngay egg. moo tax ñu ne leen toog leen yow fi mu ngi nii boo ñibbee sa kër yóbbuwaat ko sa njaboot. ñett li woo leen. ñett li woo la quarantaine fii. nga sa dootoo liggéey sax njaboot na ci fitna. wax nañ la quarantaine yow. suñ même moo xam. yow sax yow sax dan bi gën a gàtt li may def xam naa ko léegi dangay seere mbaam mi ne ma woote ñu fekk la fii sax yéen faaw ñu jël leen. mbaam mi de barki barki sëñ Ismaïla Mbacke ku mën a seere yow kuur gi nga yor rek kuur gi. xool kuur gi ak mbaam mi nga xool barki xool barki sëñ Ismaïla Mbacke. waaw yow yow daal xaar. maanaam maanaam ñu ñëw léegi parce que kii faaw ñu lañ koy fekk fii mu taxaw fi lañ koy fekk xool ko bu fekkee daf ko am yow mi yëpp kii yëpp ñëpp ñëpp dañ kaar def waaye sëñ bi nag dimbali ma li li saa yow saa kër wuy ma ci laa wuy ma man dinaa say matuwaay li may biisee mais boo jëlee say matuwaay ñi lay fay xaalis bu tax loolu ma fi jógee fii ma taxaw la taxaw